data bu neex bi borom lëf li nëmme àdduna bi borom data bi nga xamante si nii ba mu génnee ba tey data aji saar dafa suulu xanaa du kii moo neex lëf tey nag damaa toog di nelaw fii laa tëdd di nelaw fii fii benn journaliste bu siiw woo ma téléphone quatre fois jëluma ko <coughs> mu woowaat ma ma décorosé mu ne ma aadama nu mu demee ma ne ko maa ngi fi mu ne dama laa woon pour cadre Mbaaco Njaay Mbaaco moo ma woo ne ma dalaa bëgg a contacter wax ak yow waaye day ragal nga enregistré ko ma ne ko duma ko def mu ne ma dafa bëgg ko ko jàppale dafa sonn dafa am yu bari ñu ngi ko koy tuumaal nekkul ci biir yaa ngi dégg day bañ nga enregistré ko ma ne ko duma ko def mu ne kon kuppeel maa ngi lay woowaat mu woo Mbathio Ndiaye woo ma ne ma ah Adama il faut nga jàppale ko ndax yaa ko war a soutenir ndax comme sa sœur la ma ne ko mën nañu koo jàppale parce que mën na juum mën na juum mën na juum mën na jëlaat data bi raxas ko à côté lëf du yàqu Mbathio lëf bu amee problème même bu sëyee tas ah Amina Poté dina ñëw ci moom man naa raxasaat data bi ba mu jet defaat ko arm ñoom denc data du yàqu amul problème dinañ ko jàppale bu juumee yéen a may dégg bu baax mu woo Mbaaco Njaay Mbaaco mooy wax de man damaa bëgg lu may wax mu leer Mbaaco mooy wax damay ragal nga enregistré ma di Mbaaco ci boppam mooy wax mu ne mu ne ay dimbali ma bu ma enregistré s'il rek ndax damaa nekk ci loxo yu yoon war a lijjante ay bagage s'il li may wax ma ne ko waxat rek ma ne ko waxaat rek ay s'il te plaît s'il te dayee ci yam mu ne ma dafa am lu ma tuumaal montar beek affaire yu bari ñu wax te dara du ci dëgg te maa ngi samay preuve dama war a dugg ci live bi leeral ma ne ko ah bul ma def loo annonce wax loo ma ay wax mbaacu njaay te doo dugg du baax ci yow de man nekkuma ci yooyu de man duma xeexal kenn wala kenn di ma jay pour ma wax di raayal taatu nit di yàq sama crédibilité joobeewu ma noonu de dama lay wax lu leer ndaw si si bu siw bi damay bañ a tudd turam rek nga xam nga man sama yaram bu tàngee sax am na nu muy demee mais duma ko tudd mu ne loolu du am incha allah dina dugg yaa ngi dégg message na ma nag yaa ngi dégg lii la ma wax li ñuy wax du dëgg nangam nangam man nag kenn amul màqaama ma toog fii ah dina duulal ah kenn amul màqaama ma toog fii di la fenal di tararale rek ndaan mbaacu naa ne nii ndeka lee du woon dëgg lee nangam nangam du ma ko defal kenn du yow du dabaay du baay njaay du kenn ndax kenn fayuma ci kenn joxuma cottu ndeyam li ma ci xam rek laay wax léegi ma ne ko yow sa ndeyu bind bu ma defee sama annonce nga dugg nga waxal sa bopp ma laaj la ay question nga tontu sénégalais yi man laa comprendre li nekk ci yow lii daal lan waxante waaw man duma waxal kenn duma tudd kenn duma naan ay diw nee na nangam nangam directement duma ko def waaw parce que nit looy wax rek na waxal boppam waaw man duma wax wax waxu kenn kuy dugg daal contacté ma wax li ngay wax kaay waxal ko sa bopp waaw léegi nag Mbathio Ndiaye ah nan ko jéem a contacter ba xam dina jël bu jëlee baax na nga wax soo jëlul nag ma xaar sa ndey rek ñu xam ne yow moom li ngay wax ñemewoo ko ñaar yooyu rek a mën a am omelette sa lëfal ndey wala nga dugg rek jaalaat ci A ba Z man maanaam dama xamul nay leer rek affaire yi moom loolu kese la waaw loo wax rek na doon looy répété man duma waxal kenn dara du ma tuumaal nekkuma fi du ma rajob kenn man du ma objet waaw objet boo xamante si nii ku ñëw rek ne ma nangam nii liggéeyu ma noonu waxaluma nit topp di tararari man yii sax du samay affaire affaire u sëy yéeg yooyu day jaxasoo rek di tombe lëf laa gën a mën a lijjanti ak daga lenn daal laa xam ne mënuma koo supporter muy lan ah ku tudd Wally sekk Wally Seck moom boo dof dof loo ba tudd ko am soo su soo ba ma waxee ba tudd Wally lan xamante ma ne ko eh mu ñaar de bu bu bul nangul ma loolu Wally sekk moom boo dof dof loo ba wax ci moom loo wërta wax kala naxa katt ndeyam foo manti nekk ci àdduna bi moo xam président nga ah moo xam ministre nga ah foo man manti nekk di nga ma wuyu te dinaa ñaf sa ndey nga wax ma foo ko teg kooku kese laa xam ne moom mais comme yi genre yi moom du samay affaire mais dañ ko ciy boole nii rek mais faramaarin bi moom ay laay man boo waxee ci man sax garaawul daa la bàyyi mu sedd nii ndax aadamum problème mais waali waxul deful liggéey lay def jaamu yàlla nekk ci musique am ay ku ko ci bàyyiwul ba mat mboroxe sa tuulu ndey <laughs> bu jëm foofu foofu du baax léegi ñu déglu Mbathio Ndiaye ba xam dina woote Mbathio bu fekkee yaa ngi seetaan mën ngaa woote de ma ne ko yow laay xaar bu fekkee yaa ngi seetaan bu fekkente ne tuy seetaan mën ngaa woote de ndax yaa ma wër waruma la de ma répété yaa ma wër waruma la yaa ma woo wax ma say wax ah te bëggumaa yëngu bëgguma dëkk bi yëngu yow li di dal sa kaw rek dafa bëri bu dee nag yaa ngi seetaan wooteel gaaw parce que temps amul de j'ai pas du temps j'ai des autres choses à faire man aadama noonu lay dundee duma toñ tooñ nag mais kenn du ma tooñ mu ngi sone rek de mbaacoo ngi sone rek mbaacoo ngi mbaacoo ngi sone rek mbaacoo ngi sone rek moom ak benn xaritu journaliste am mu ma woo téléphone bëgguma nag di yëngu waaw ah, bëgguma di yëngu de sama yaram bu tàngee damay panique mu ngi sone rek non man du ma wax ci moom lu ñaaw de mais dama ne la man boo ma wax loo ba ne ma da ngay dugg ba ma def sama annonce da ngay ñi ko fu ma a def ñëpp daqaar naa seen ndey da dugg man du ma tooñ déggoo ma de man dama ne la Mbathio moo ma woo personnellement man woowuma kenn xam nga ne man sama yónneewul ci kenn mais nag bëggumaa wax nit lu ñaaw bëggumaa dépassé nit mais kenn du ma tooñ kenn du ma def loo ay annonce après yooyu di ma woo di ma yee ci ay nelaw moi moi j'ai entré de dormir hier j'étais en France J'ai fait quatre jours en France, j'ai retourné aujourd'hui, j'ai entraînement, j'ai mal de tête, mal de tête, mal de euh, tout le corps. Mais j'ai j'ai en train de dormir ñu may woo ay appel dimbali ma jël ñu appel dañ laa soxla Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye voilà léegi nag moom bu duggul voir les conséquence sénégalais yi xam na cagala rek te li muy wax lépp dara du ci dugg te am na ni muy demee sax ñu génnee ay lëfama man daal conséquences yi bëri na woowu ma kenn j'ai dérangement aucun ñoo ma woo man duma woo kenn barki Serigne Babacar Sy j'ai aucun dérangement defuma kenn dara tooñu ma de waaw tooñu ma lu leer laay wax de tooñu ma kenn <coughs> nan ko mayaat yeneen cinq minutes wala quatre nan ko mayaat yeneen cinq minutes rek wala taat ndaw si ma woowoon nag xam na boppam bu baax bu fekkee yow tamit yaa ngi may seetaan nga woo Mbacco Ndiaye nga wax ko lu leer parce que aw ma temps de sinon damay kat nday bagages yi de waaw yéen ñëpp a xam seen bopp da ngeen di dof dof lu rek xam ngeen aadama nag man jóobeewu ma noonu waaw ndaw si ma woowoon tamit bu dee yaa may seetaan yow it woowaat ma rek bala maa commencé jaar ci digg bi bëgguma temps waaw woo ko nga woo ma wala mu woote rek gars yi man du ma tooñ. man man du ma tooñ man man du ma tooñ man boo ma woowee wax ma ne nga da ngay dugg su ma defee annonce dangay ñëw ah man saa ma ree pour ma def annonce ak ñàkk a def annonce mais bul ma wax ne ma defal lii ma def annonce nga ne ma da ngay ñëw te doo ñëw loolu damay mer temps amul damay mer parce que man homme public la benn yoon laay wax j'ai pas du temps de perdre à faire des vidéos daa jël temps vidéo dafa dafa metti salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum eh, loolu mën nga cee day sax boo ko tàmmul non non vidéo daa metti xanaa xamoo soo ko tàmmul mën nga cee day daa metti waaw munumaa toog rek ci kii waaw munuma loolu vidéo dafa metti vidéo de jël temps am na kuy woot waaw kii dafa mel ne ndaw si la ah, dégg nga salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si nu mu demee. ça va Adamo. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm et toi maa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm lépp cool. xaar de. waaw Adamo. Euh, c'est li nga wax yëpp dëgg la. Mbathio moo la contacté. waaw. mais journal kii ci boppam euh, avocat mi dañ ko xamal ne comme instant bi dossier bi dafa nekk en cours. Ah. moom dafa war wuy ci biir semaine bi. Hmm? warul def sortie. ah loolu lañ ko wax. incha allah waaw incha allah. bu ah. fekkente ne wuy dina ba affaire bi dossier bi féetee côté. Ah. moom dina ñëw live bi daal di génn wax. waa léegi moom ba ba may wax ni ma def publicité bi moom xamul woon mi ngi en cours dossier bi. yoon moom affaire yoon la loo maîtriser wul maîtriser woo ko daf ko maîtriser wul rek moo tax mu waxee xam naa noonu ak yow. Hmm. kon moom loolu daal mënu ko wax yow rek yaa ko mën a wax. avocat mi ñoom ñoo ko tere pour mu wax. ah avocat ko tere. comme moom eh, waa instant bii dafa am dafa am plainte bu nekk en mu bu tegu ci kawam. ah. waaw loolu moom moo tax mënul génn wax. soxna si. oui Adamo. orange mi ngi lay jaajëfal. toj seen lëfal nday nga naan ma dossier bu nekk en cours. ñii danoo yabaate. Mbaaco Ndiaye. gaa yi déglu ma man du ma tooñ da ngeen may déglu bu baax da ngeen may man du ma tooñ man du ma tooñ kenn man seetsewu ma kenn woowu ma kenn aw ma temps man fii laa tëdd di nelaw barki Serigne Babacar si fii fii laa tëdd di nelaw fii sama lal tooñu ma kenn yaa ngi dégg. bu ma wooloo di ma yeb di ma fontoo naan ma defal annonce dugal fii di duur rek di dajale tey nga ñëwaat di yónnee kii ay ay sama kii sama samay mbaaco bu ma kattulu ndeyam yow lu la wax rek def yow lu daa bàyyi wax sa tuulu ndey rek yowa mbaaco lu la nit jiiñ yowa bu ne laa katt nan la katt nan la kun ci dugal ci affaire yi rek yow yaa tax ñu dugal ko ci dencal sa lëf lii te nga bàyyi sa dugal yi man dooma def yii de barki démboo njaay la fi sa data génn ma koy nëbb man yi nekkuma ci de dëgg sa day laay def boo ma woowatee di ma wax loo yii ku ma ko mas a wax daqaar naa sa day ponkal mu toll na yow boo jógee jàpp sa data bi di sëy rek di sëy di tas di sëy di sa mais yéen nan ngeen di xamee ki leen kat tey ji yow bàyyi ña bàyyi ñas bu la bu la takkee mbaaco kat la kat la nga dem sëyee keneen boo ubbee sa lëf doo sentir ne kooyu bàyyi ñas gi duggoon na fii asafur laa ci tur bi sax ndax bàyyi na sëriñ la nga sëy ak Abdoulaye mu kat la yow bu la Abdoulaye kattee ah doo xalaat yow boo ubbee sa lëf Abdoulaye ndax ñamoon na fi Baye Niass tamit jaaraat na fi nga tasaat nga dem ca biraan mu takk la kattaat la nga ubbi waat sa lëf est-ce que yow doo xalaat ne ñetti ko yu bokkul encaissé nga ko ci benn at bi tasaat ci mataar seex takk la kattaat la encore sarab ndey lii lu ma la nar a wax xeeb ko ndax yaa ma tooñ bul ma tooñ man tooñu ma kenn bul ma woo nangu dugg assumé woo kuy duul wax naa leen ko ba tàyyi képp kuy duul te doo assumé say day bul ma woo bu ma tooñ non non man du ma tooñ nit képp koo xam ne dangay fen bul ma woo boo mënta dugg bu ma woo sa waay bu leen ma contacter aw ma taa caga ngeen dama leen di jàppale rek man xam naa ne kattante kat nga sa lëfa ngi nii fi génn lii sa lëf la may ma ma ñëw lii sa data la am na yeneen bu ma yëngal nag Mbathio Mbathio bul bul ma yëngal waaye Mbathio bul ma yëngal non bul ma yëngal de man du ma tooñ du tooñ bul ma tooñ bëgguma ku may tooñ bëgguma ku may tooñ bu dee doo dugg ci live bul ma ko wax aw ma temps non non damay nelaw aw ma temps duggoo ci live bu ma woo naan ma Adamo nii dimbali ma s'il te plaît nag bu ma enregistré coono demee yow rek yaa ci mën a jàpp yaa ci mën a cottu nday loolu lii bu ma lii kii damaa war a katt ndeyam ay yeneen vidéo sax yow dew am na lu may seet quoi kii ku katt ndeyam la non kii da kii daf maa merloo quoi xam nan ne yow sœur nga sunu sœur nga dan lay soutenir moo tax ñuy def loolu ak yooyu sax ndax ñun xam ne xam nañ ne moom caga nga kattante kan nga te bëgg nga koy mais nag lu nu mën a def danañ la mën a soutenir parce que dañ ba nanoo am ay rakk lëf lu xajam lu ne mën nañ koo defaraan mu yeesaat looloo tax ñu sonn ci mais bul woon nit ñi di leen wax loo benn affaire ba pare doo dugg man awuma problème xol bu rafet laa yor man nee naa la mën ngaa nekk comme suñuy sœur def nga fa lu ne mais le passé c'est passé amul problème mais del assumer mbaaco del assumer maanaam problème de assumeur nga dese del assumer li ngay wax di assumé ñun amuñu problème de non amuñu benn problème ak kenn duñu tooñ non duñu duñu tooñ waaw am na lu may seet nag waaye kon am na lu may wane fii dëkk bi day day tàkk yii bu ma ko defati dama laa xaw a yërëm sax xamul tax parce que li nekk sa kaw dafa bari temps yi nit ñi liñ lay waxal bari na yaa ngi stressé wu toog mais ay avocat ba ngay ñëw ci man di woo Adama xamoo ne woon avocat yi dañ lay tere wax ñoom daal dañ lay wax li ngay wax ne dañuy dugg ba pare wala di la waxee avocat avocat yi xamuñu woon ne waroo génn wala avocat yi dañ na la nga wax ak Adama ba pare ñu doog a discuter nan la ñuy def boo ma defatee yi ma toj sa cottu ndey de mbaaco man yii kenn du ma ko def soo ma ko defatee léegi léegi damay karole sa lëfal ndey de la xaarangaa dof yii nekkuma ci man awuma temps man duma tooñ kenn man duma tooñ bëgguma nit di ma tooñ man billaay man duma tooñ fii laay toog di nelaw man bu leen ma woo ci affaire yu jaaxaan man duma jaaxaan duma jaaxaan am naa lu may seet nag naa jàll ci deuxième de juillet bi soxna Amina Poté Amina Poté moom gars yi deful dara mais parale am moom day tas rek tas na ñeenti yoon day tas rek day tas rek mais nag nit ku baax la ndeysaan ku nangoo sëy la billaahi ku rafet xol la soxna Amina Poté mii ak a baax wóor na yàlla xol bu rafet la yor mais sama problème mooy maanaam tas gi muy tas nii fu affaire bi nekk problème bi fu mu ne day tas rek jël na ñeenti cours yu bokkul day tas rek mais xol bi dafa baax man dama koy yéene ndey ay waay sama live bi ngir yàlla kan moo koy jël sëyu léegi yi gars yi koy renouveler mais xanaa ku mel ne Amina ak Poté ak bi ni mu rafetee bu ngeen koy renouveler ngeen defal ko quatre ans par mais six mois deux mois trois mois ay waay ku ko ku jëlati contrat bi ngir yàlla ak yonent bi defal ko ko contrat indéterminé mooy bu dul jeex mu toog ci sëy bi dimbali leen ma ngir yàlla yéen ñu yor wàllum sëy mi di renouveler ay contrat renouveler ma ko contrat bu dul jeex kii nit ko baax la sëykat la ku nangoo sey la ku baax la ngeen koy renouveler lu li ngeen koy li ngeen koy renouveler daa tuuti lii kenn du ko def non nit ko baax la mais day tas rek ñeent yoon tas na ko fi mu toll nii man moom Amina dama la wax dëgg ay heureuse menace mënatuma ko heureuse menace Amina yal na sëy bi bàkk am na jigéen ñoo xam ne fa lay nekk rek du duur heureuse menace Amina sont très mignons mais au sourire dafa rafet ah yal na ya du ngeen gaaw am jëkkër de ku ñëw ngeen ne ko heureuse menace te yéen déggagu leen benn menace yéen heurel plus sax déggagu leen ko bay dégg menace. loolu rek ngeen fi nekk loolu waay publier heureusement oh sont mignons heureusement naam ah, sont belles sont sous ko dégg heureuse menaces yi ci boppam man ci laa sonn Amina Poté ay waay yàlla na la yàlla may jëkkër ju baax te bu la ko mayaatee sa contrat mu defal la ko bu dul jeex indéterminato nga sëy ba dee mais contrat fii contrat fee boo signé ak Modou Gueye ñaari weer tas moom signé ak Pathé ñeenti weer mu fase la nga demaat ca Abdou mu dóoral la six mois mu fase la kële laal la un an fase waat la nga toog libre nag wala xoolaat say contrat foo war a liggéeyee déedéet loolu dootu bokk nangooti poté heureuse ménage day jeexal yii parce que boo nee heureuse ménage sa yii nii lay def yàlla boo jël nag français bu original bi oxoon moo mooy kii da ngay gën a dee boobu da ngay wonk mel ne unku dafa metti day sax mën nga koo def maanaam nit koy souhaité dafa metti mënuñu chaque jour di ko joxe condition la laaj de ngir yàlla ak yonent bi ku ciy jëlati naa Poté ngir renouveler ko contrat am defal ko ko indéterminé maanaam budul jeex. dégg ngeen yàlla na ko yàlla may jëkkër ju baax non moom ku baax la boroom xol bu rafet la ku baax la Amina Poté mii xol bee rafet dafa amul sens rek mais ku rafet xol la tey nag damaa mer Mbathio Ndiaye ñu ma def nii bu ma ko defati yaa ngi dégg damaa mer yaa ngi dégg j'ai entré de femme maanaam j'ai faim dama xiif damay dem lekk yaa ngi dégg waaw tey damay teel a tàggatoo